Assalamualaikum eh, warahmatullahi wabarakatuh. waa Touba yëpp euh, di leen wax man maay Abdou Lahad Faye te nekk njiitul clinique Abdou Lahad bi nekk ci 28 bi jiite waale également service bi nga xam ne nii moom mooy ak lépp luy jëm ci wàllu bët euh, spécialisé wu ci chirurgie de la cataracte mooy opérer cataracte moom ci la sama xam-xam gën a euh, màcc jëm mooy mala duma don ma doon def sànq cataracte la woon muy ben jangoro boo xamne ni bari na lu muy dal mag ni ben mag nak mucc ci sa buñ ñu ba am juróom ben fukat jëm kaw luy upp muy góor muy jigéen dañuy faral di gis seen bët commencé dal da melni ku gis saxa su demee ba nga xamni nit bu jakarlo yow da daanaka dootoo xamé ak xar xar kanamam ak yoy bo ba nak ci lay commencé di ñor gis-gis bu commencé wàcc nak ba jege un dixième wala lu ko dun soufé ci lay ñore bu ko defee ñoo nous fii di defal leen consultation eh, defal leen écobiométrie après nag programme yi dañ ko génn leen cataracte bi defal leen seen implant bi nga xam ne ni moom lañ war a am moom daal léegi faj bi di demee di ci ëpp waaye nag du loolu rek ci lañ yem am na ci yeneen la boo xam fa koy togg war ko jàllale mu ñew ci biir tët bi mom mo fat fat bi nak gland bi dafa nek di produire waaye amatu fu mu jaar génn xëy su yagge tuuti defé dem ba defé degg ak dëgëraay bobu nak mom mo tax day dem ba day laaj ñu koy génn même si biir depuis 2012 nak ñu ngi ci di ci liggéey di ko and ak waa district wa région médicale ba yalla dimbal nañu ñu ngi ci am ay ndam ndax euh, daw rek amna ben campagne de distribution de solution boo xam jot nañ ko def ba mu ba mu waa tasaaroo woon fii ci dëkk bi yu bëree bari nga xam ne doom yoo xam ne ñu ko doon jox nit ñi pour mu boobu léegi nag des na nag incha allah ñu xoolaat euh, loolu ñu leen joxoon ndax am na njëriñ ci ñoom am déet ndax beneen étude boo xam ne ñu ko impact loolu ñu jot a def ndax day jar yeesalaat bu ko defee nguur gi xam ne ko defoon mu am nañ taux boo xam ne gën na tuuti 10 pour cent xëy na mën nañoo jël yenn stratégie yi xam ne moom moo ci des comme ni ñu ko xamee mooy seulement ak saabu top euh, to environnement bi wanag yi fexé ba wéñ ci am da da am xeeti wéñ yo xamné ni ñom ñoy doomu jankoro bi ñoko jëlé jëlee ci wanag yi di ko dugg mais euh, bu ñu natuwaay wa wanag yi ci am bu am sa bu euh ñu fexé tamit ba ñi nga xamné ne amuñu ay wanag ñu défar leen ay wanag leen ñu way environnement bi dëkk ci benn kër gi ama amalé fa géttu nak wala xeet yoy gis nañ ni ci étude yo xamné def nañ ko waaw ah, man sama sama sama jàng bi mënum jàng en centre communautaire sama master te ci loolu laa ko soutenir surtout ci donga daara yi mais gis nañ ni ñi nga xam ne nii seen biir kër dañu am gët nag gis nañ ni xale yooyu dañoo gën a am euh, euh, euh, feebar boobu que xale yi nga xam ne seen kër amul gët léegi nag gët gi dañuy fexe ba ñu ñu ñu koy toxal def ko fañ ko war a def nit ñi fi ñu war dëkk ñu dëkk ko si loolu weesoo également sëlmu bi toppatoo bi environnement bi dafay am antibiothérapie mooy comme ni ko ministère defoon distribué mais du doy ndax daa poste santé yi dañ koy am mu tetracycline bi ñuy fexee ba xale yi ñoom ñu ko présenté ñu jox leen tetracycline di ko jëfandikoo ci diiru 45 minutes euh, doomu jàngoro bi mën na leen a bàyyi leneen lañ des ñi nga xam ne dañ ko am ñi nga xam ne dañ ko am am na fii ay opérateur de trichéasis yi xam ne formé woon nañ leen depuis 2012 ñu ngi ci dëkk bi euh, maam Cheikh Ndaw Fall bu nekkoon kër ñang ali, eh, top bi nekk sek abrahman sek bi nekk daal tanzil papier Pape Thierno Tambédou moom dem na formation ñoo ñëpp formé janggoro, nañ leen ngir ko am doomu jàngoro boobu boo demee si ñoom technicité bi ci war am nañ ko war nañ la ko mën defal lu jaar sax ñoo ci barabu faju barabu fajukaayu bët yi ñoom na sax jaaxal dañ ñu ko yot ñun nag suñu amee lu ñu jaaxal ko yot médecin yi jot ko suñu yi ba nga lépp loo xam ne war na ci ci wàllu faj ñu mën ko def tax danaa la jam tuuti dégg nga hmm? hmm? danaa la jam tuuti waaye du metti dégg nga hmm. понятно, как дошло. Mati itu lihat hmm, Jadi dengan nan dua belas kelas, Purmana turun mana gol batu baru batu, mana jor ciger beda enggak? Ya kipi batu. Mati ulah. muy métti tuuti dafa teg dafa teg voilà léegi nag loolu moom mooy tax bu ñu bësee géer bi dafay daal di mën a génn te du laaj lu ñaan jafe-jafe te du naaj ci dégg moy seconde bi ma waxon di graisse la bo xamne ni mom mo wara wa ndox ronkagne dafa am ndox la ci bir waaye bët il faut mu amale tout lu nin touti que qualitativement ronkagne du meuna bax legui lu nin do nak le le le gland bi nga xamne ni mom mo timé fiewu ba ba sakk ni yu bari la du ben du ñaar dafa lo ci ci fi nga xamne ni moy mbaru beut lay nak tay am am bo boo xam fay sak bu sakke man nga ko ubbi des fois nga éliminer ko te dina am yeneen yoo xam ne dinañ fa des mën a continuer jouer boobu daal léegi fi mu toll nii maa ngi koy curateur gën di dem également da ngay gën a def hémostase ndax boo ko deful mun na nàcc ba dootoo xam fooy jëm ko Amém. su suñu génnee kii bi ba pare tey faral di am sac bi sac bi mooy li nga xam ne moo nekkoon mbuus bi nga xam ne nii moom moo moo defoon kii bi for c'est bon léegi damay vérifier est-ce ma doon kii yëpp set na voilà bu ko defee ma delloowaat mbar bi kii bi fi nekkoon boo koy ubbee également doo teel a bàyyi plaque bi ndax bu ko bàyyi rek mën na la soxla defal ma pommade léegi pommade kon pomade bu bari am waaw waaw suñu kii dañu di bàyyi soo nga def émostage bëttoo génn si biti soo bëttee génn si biti nga nga ko maa méttiwul. Hmm? déedéet. waaw ah, voilà lii donc la woon léegi nag dama la koy tëjal bu subaa nga ñëw ñu génne ko dégg ñu génne tax bi ah. Aja noppi nga dëgg bu dee opération cataracte ñun méthode bii nga xam ne moom lañuy ñuy def ñu koy wooyee euh, euh, small incision mooy euh, la chirurgie de cataracte avec une petite incision nga xam ne ça respecte après beaucoup de choses nga xam ne malade bi su ko defee ba pare su pare doo ko ñëw day fermé waataat boppam ndax ndox bi ngay defar si biir bët moom mooy mooy fermé waat bi donc bu euh, doon incision yu mag révolutionné na hmm, résultat yi daan am ndax yenn saa yi nga opéré nit mu def une semaine mu ñëw gis-gis ba mu amoon mu amaat ko te bu njëkk jamono bi ñu doon ñëw waaw nit ki dañ ko defaraatal ay lunette yoo xam ne nii moom mooy jubbanti waat astigmatisme bi nga xam ne bi ngay ñëw ba pare tiiri fii yi dafa daan war léegi yooyu moom yu bari amatul daal mooy am léegi tamit muy mën a def écho biométrique nit ki nga mën ko xaymaal li ñuy génne si biir bët bi muy cristallin boobu ban cristal ban ban lentille moom la correspondre ba nga xam ne boo ko defalee euh, su fa jógee li muy am ci gis-gis dina méngoo ak la nga xam ne moom la moom la moom la amoon ca bu njëkk te boobu benn jàngoor jotu ko te du laaj mu am ay verre. mooy yi ñu am léegi permettre na tamit nit bu ñu ko opéré du mën lu jël lunette mais ñi ci jël lunette bu bari jël lunette bu bari donc foofu la cataracte tamit ça dépend ci ki koy opéré. am na ñoo xam ne dinañ ko juróom-ñaari minit ci ñuy gën a gaaw ba fanweeri minit ci ñi nga xam ne ñoo gën a jëfandikoo waaw cataracte moom moom chirurgie rek bu ñoree su su ñoree su ñoree rek dañ koy dañ koy génne suñ ko génnee nga dellu mel ni ñi ci des suñ ko génnee nga nga opérer cataracte amaat activité sportive yi nga amoon yëpp ah yàlla footballeur pour ñi nga xam ne nii moom lañ nekkaat pêcheur nekkaat baykat nekkaat yi nga xam ne nii yëpp nit ñi ñu ko doon defaat ginnaaw buñ la toppatoo ba pare am na nag ay digal yu ngeen digal soo doog di pare opération da lay wax nga moytandiku di sëgg-sëgg bu yàgg nga moytandiku di tëdd ak nit ndax mën nga gaañu nga moytandiku également di ñàkk def sa garab wala booy def garab yi kii koy def ñàkk raxasu wala euh, euh, euh, tuufaay bi di laal ci biir bët ndox benn moo war a dugg di moytandiku également di di dugg ci sareet boo xam ne lay yëngal yooyu dafa doon yoo xam ne nii mën na jaxase euh, ndoxu bët bi di moytandiku également euh, tukki tukki bu amul dañoo constaté que ne ñi nga xam ne nii dañuy nekk ci transport yi bu ñu jaaree ci yoon boo xam ne ni ngelaw li dafa xaw a bari suñ takkul jumtuwaay ay lu mel ni ay verre euh, seen seen bët bu ñëwee da gis mu daal di commencé di jamaat day delluwaat loolu nag li muy jur mooy méthode boo xam ne mën na la ko àndil naxal sa biir bët ba nga xam ne ni faj mi bu waroon gaaw du gaaw yenn saay gaañu gis ñoo xam ne dañuy tëdd seen sët bu yàq leen ci guddi gi ñoo koy suba gi bët dafay daal di kii xam ne laaju defaraat nit ñoo xam ne ni tamit ñu sëgg di julli sëgg sëgg boobu gaañu wala suuf dugg ci biir bët bi wala yooyu yëpp day doon yoo xam ne suñu opéré daal yooyu yëpp dañ koy mottal dañ leen di digal suñu julli ñu def julli ku feebar di nga mën jàpp na di nga mën sangu di nga a seen moom saabu yi ñu daal def wàllu set yëpp dañ ko mën waaye nag yi nga xam ne yëpp mën la gañ dañuy wax nga mën tëdd benn biiru benn semaine rek ñu après ay li ñu daan def yëpp duñ ci mën a def loolu ñu xamante tamit euh, mun na dal gune mun na dal mag euh, am na ci ñoo xam ne nii dañ ko juddoole waaw ñooñu tamit dañ leen war di yóbbu ci service d'ophtalmo yi ñu xool leen préparer leen opérer leen ci ñi nga xam ne am nañ jumtuwaayu def ko lu mel ni Abbas Ndaw am na fa chirurgien pédiatre bu fa nekk jam ñaajo moom mooy hôpital bi nga xam ne ni am na spécialisé waaye nag du tere yeneen structure yi nga xam ne ni am nañ moyen def ko te ña fa nekk entraîné wu war ko mën a def mën nañ ko def donc daxancet dafa demandé mooy na xale boobu xale kenn mënu koo nax na nga ko tëddal muñ dañ ko nelawal balaa nga ko nelawal am na loo ko war a defal da nga koy yóbbu pédiatre xool ko su muy benn jàngoro su paree ñu bindal ko bilan bu fa jógee mu dem di anesthésiste mu xool ko ba ne kii apte après nak ñu andi ko top to ko prémédiqué ko buñ ko waree prémédiqué buñ ko waree anesthésie générale ñu defal anesthésie générale su paré yé ko top to ko téye ko ba nga xamné xel jël delluwaat na sa room ñu jëmbal ko ñu defal ko ñu muy jëlee garab ndax cataracte boobu boo top to su ko borom yëxee offert tamit gis-gis ba dootul neex ndax day daal di développer lool ñu wax amblyopie donc comme yeneen xeetu feebar yi comme myopie boo xam ne ni xalé am nako am taat tout tankam te ñun wolof ñu naan boo teelee takk weer day tax a ngay dem dootoo gis alors que loolu ngëm-ngëm boo xam ne tegewul ci science la science li mu nangu mooy jàngoro loo ko gën teel a faj mu gën gaaw a te gis xale boo xam ne day am jàngoro ñu naan du takk weer day continuer waroon na am commencé def lu war a defee ay myopie de moins moins moins un fajuñu ko mu defal moom pendant quinze ans daf ñu dal fii nga gis koo xam ne nekk na ci daara yi saa buy jàng nii lay def.

soxla na activité yi nit ñi am yëpp ci àdduna mu am ko waaw léegi est-ce que buñ ko sàgganee ba bu màggee am na xam-xam waaye yu bari yoo xam ne ay borom mën nañ ko jëriñoo mënu ko jëriñoo buñ ko ko waxoon te at nañ ko waroon wax nañ ko dimbali nga xam ne su màggee lu mu bëgg a def dina ko mën defal ko mu am benn kàllankoor te loolu jàpp naa ne également loolu rôle sëriñ daara yi la rôle rôle parents yi la rôle agent de santé yi la ñu ciy leeral nit ñi tamit mën a xam aussi taxawaay bi nga xam ne ku ci nekk war nga koo am yi nga xam ne ci njaboot gi ci leen di saytu surtout jàngalekat yi dem si ñoom laaj élèves yi nga xam ne ni mu ñu féetee ginnaaw ñu gis ñun depuis ñaari at ñu ngi koy def di dem ci lycée yi benn weekend dem gratuitement dépister leen xool ñi nga xam dañu am problème mu lunette ñu waxtaan ak proviseur bi daaw lycée de Mbacké def ko fa prochainement dinañ dem si école Abdi bi def ko fa benn weekend on le fait gratuitement dañuy ñëw parce que am na ci ñoo xam ne ni boo leen fekkewul doo a faj te tant que ñu ngi toog naan malade dafa ñëw malade bi ñëwul kon kan moo koy dimbali donc il faut ñu génn cadre yi dem cadre yi nga xam ne nii boo demee dafa fekk koo xam ne soxla woon ko nga dimbali ko fexe ko yee ko si jàngoro ba mu xam ko nga wan ko lii possible na li nga dul gis nii boo amee jumtuwaay sangam di nga ko mën a gis su boobaa léegi booy juróom dinañ ci moom ñoom ñoom ñu ci ko dee li nga xam ne moom moom moom la a am yoon loolu tamit solo ci wàllu wàllu faj mi waaw di di sant di sant ñëpp te di si jiital waa Touba Euh, boroom dëkk bi di Mountakha Mbacké di si di monsieur Ndiabou Laat sama sëriñ euh, njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp ñu ñoo leen ñëpp ndax euh, li ñuy wax ne peccam liir bu neexee boo jur yaa jàpp ci wakk ya man lépp loo xam ne am naa ko wala Tuubaa ñoo ma ñoo ma ko may confiance bi ñu am ci man it xëy na moo ma àggale fi ma àgg du ma dem mukk it nag di leen ci leen ci gërëm te tamit di defalaat sama laxasaay ba yaakaar bi nga xam ne am nañ ko fii ba nga xam ne ku ci dara jot sab sëriñ sax boo ko tàggoo danaa demal ci Abdoulaye donc ñu ci bëri balaa ñoo dem feneen dañuy njëkk loolu confiance la ñu ñaan yàlla yaakaar yooyu ñuy amit yàlla na ko suñu borom di gën a dëgëral ci bi nga xam ñun ñëpp ñoo ko bëgg sëriñ Touba leneen li toppit mooy euh, di ko di ko leeral population bi am na foo xam ne fol tolloon nañu fa ci wàllu liggéey yaatal nañ ko te yaatal gi mooy jóge nañ ci comité paramédical bi ñu nekkoon ne clinique mixte mooy xeetu faj yeneen yi yëpp am na fii am si yeneen barab te bu ci nekk yaakaar naa ne liñ ciy laaj nit dana méngoo ak la nga xam ne nii moo xaw ci privé yëpp yi fi xam ne mos gën a yaatu waaye bokk na ci ci gën a néewle ndax li may wax ni barab yu mel nii su ko ubbee su ko nit ñi mënut a jëriñu def ko hôtel moo gën parce que barabu fajukaay duñ ne dafa nekk clinique ba dafa war a nit mën naa bëgg lu baax te du am xaalis man bëgg lu baax ak am xaalis jotagul dara bon tout du luxe suñu prix yi ak prix public bi différence bu ndaw la am na ci ñoo xam ne nii dañoo préféré dem ci public. kooku dañ leen war a bàyyi xel wute leen offre de soins boo xam ne nii dana adapté également ak seen ay moyens en tout cas ñun ci mission bi nga xam ne moom la am mooy clinique lañ mais vocation bi ñu am mooy vocation sociale. te pas dajalee ay milliards wala ay millions yàlla nañu ko suñu borom jox ba ñu ñu ko mais pour que mu retourné waat ci population bi le maximum possible en tout cas cadre bi nañu fexe bu fi ñëw ko yëg sa bopp que de fii ay ndongo daara yoo xam ne yéen a bokkul ngeen te bokkul ngeen gëm moom ngeen fi dajale ñu bokk langage bi ñuy wax bokk fu ñu dëkk di dajante waat ëllëg ci yeneen barab yoo xam ne nii bu faj moo ñu fa dajante waat te bëgg ñu dajee kenn virus ñu ñaan yàlla aussi mu sàmmal ñu loolu ñaan yàlla également euh, population bi nga xam ne ñu fi ñëw di fay suñu borom defal leen wér yàlla rek moo ko yor sabab yi lay teg suñu loxo nañ ci góorgóorlu suñu kéem lay gàttal waaye nag wér yàlla moo ko yor yàlla na suñu borom boole ko defal ñëpp daal